يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا much and hope to see you. We hope to see you. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله sallallahu alayhi wa wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum jamian wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi màggal borom wa taala di ko gërëm di di ñaan borom di jéggal ñu suñuy bàkkaar jéggal ñu noo koy ñaan kër jullit borom bi def fa jàmm ak salaam jubóo ndax kër jullit loolu moom moo koy neexal loolu moom moo koy defar kër jullit nag ñu bàyyi xel ne du ñàkk ay jafe-jafe kër yépp loolu ku yabu rek nga xam ni fekk engagé wu nga ne ab musulmaan la wala ab musulmaan ni àdduna bi da nga pour benn mission bu gàtt mission bi trois jours rek la trois jours yooyu nag ci la sa lépp di baaxee wala mu naqare moo tax jafe-jafe yi am ci kër yi comme ni ko soxna fi waxee moom ak borom këram kenn ku ci nekk da ngaa wax loo xam ni dëgg waaye ngir kese daanañu toog weer lekk du am naan du am kon marxala baynahum min muskila amul benn kër bu amul jafe jëkkër jii ak jabar jii lii nga xam ni moo leen boole seen bopp dafa feeñ rek mais jàmbatu jigéen ñu bari góor gi it li ko metti jàmbatu góor ñu bari lan mooy loolu mooy jigéen bi dafa wax ni jëkkër ji mënu koo satisfaire ci lan lañ bëgg ñu am ci jafe-jafe moom ak borom këram ñu toog fii ngir waxtaanee ko jox leen ci ay bunt biñ ci waxtaanee ba yàlla yombal ñoom ñaar ñu gis ni lii ma leen waxoon ba tax kenn ku ne dellu ginnaaw ñu ne dañoo bëgg def ko audio ndax am na ñoo xam ne ñu ngi même problème te xamuñu lu koy saafara kon loolu moo sabab ñu koy def audio ngir ku mu fekk si sa problème bu mel noonu amoon amal na bu ñu ko dégloo ci dal ak tey mën nañoo am résultat yàlla nañu ko yàlla defal defal ko ñëpp. jigéen bi li mu wax mooy jëkkëram mun koo satisfaire ci wàllu laal moom loolu moo ko metti te boo seetloo li ko metti léegi la ma ni ko depuis bi ngeen di sëy mbir mi amoon na soxla si mu ne bi ñu nekkee man ak moom rek problème boobu amul woon waaye bi ñu demee ba mu takk beneen soxna benn ñaar la problème bi tàmbalee am mu ne ko waaw ma laaj góor gi li mu wax yaa ngi toog ndax noonu la góor gi ne déedéet demewut noonu ni mu demee mooy yoruma ko moom rek dama koo yore yore ay moromam moom nag mooy suma aaw waaye depuis ma takk ñaareel laa seetlu changement bu mel ni ci wàllu la moom dafa jàpp ni daal bu ma ayee ci moom guddi gi yëpp damay sëy te man nit laa mënuma ko bu njëkk bi ma amagul ñaareel daanaa ko sàkku léegi muy bañ kon tey dem naa ba am ñaareel mu jël sëy def ko am ngeen déglu bu baax li góor gi wax nee na ma dem ba takk ñaareel soxna si jël lal bi def ko am pour lan pour xeexee ma ko ma ni jigéen ñu bëri loolu mi ngi ci seen xel jigéen ñi bari koo ci dégg muy wax naan sama jëkkër mënu ko wala nangamam nangamam dafa jàpp ne bu jëkkëram takkee dana ko jox lu mu àttanul te fekk loolu njuumte la ci côté jigéen ñi njuumte lu doy waar beneen bi mooy fii warul yóbbu jigéen ñi ci agression bu mel noonu bépp jigéen jullit war na cee ragal yàlla dellu ci ginnaaw ñaareel bi mooy ñeenti jabar ñaari jabar ñetti jabar benn jabar ñooy gis nga jullit day am fii lu ko neex rek am fii lu ko naqari mais mën ta am lu ko neex moo xam góor la sëy moom cent pour cent mën nga ni ñenn rek la ko yàlla defal muy ab rusulu wal anbiya yonent yi ñoom la yàlla may loolu ndax yonent bu ko yàlla yónnee lépp luy nekk défaut bu jóge ci société bi wala bu dellu ci moom yàlla da koy baax ndax jigéen ñi dafa yomb a topp góor bu yàggee mu xas ko ci lal ak yu demee noonu moo tax yàlla day may yonent yi kàttan sëy preuve bi mooy yonent yàlla Suleymaan am na trois cent seize jabar ñetti téeméeri jabar ak fukk ak juróom benn Suleymaan mu ne dafa bëgg seen jabar yépp ci benn guddi ñaan yàlla yàlla may ko ay doom yu góor mu am ab armée di ko xeexal ci islaam di ko jàppale ci daal yéene bu rafet waaye guddi Suleymaan sëy ak soxna yépp loolu xel la loolu ku la ko wax ci xel war nga xam ne lii miracle la waaye du lu xel na imaginez ñetti téeméeri jigéen ak fukk ak juróom-benn ci benn guddi ma ni bu doon jigéen bu nekk def nga fa cinq minutes bu jigéen ju du jeex waaye yonent yi yàlla da leen may loolu gis nga Suleymaan nag ñu ko bi mu sëyeeg ñoom ñëpp kenn jëlu ci ëmb kenn benn jabar bi dong moo jël ëmb am doom te doom ji mu jur matul te doom ji mu jur matul xissa bu gudd la du ma ci fare su ñëwee ci suñu yàlla mu yon yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam benn bis wër na ay soxnaam yépp ay janaw yépp mu wër leen loolu nag dafa bokk ci xusuus yàlla anbiya yeneen yi yàlla da leen koo may mais ñun mayuñu ko mënoo guddi nga sa soxna yëpp da nga seeg ñoom benn amoo kattan bi ñaar sa diine mayu ko ñett baaxul sax ci wér gi yàlla yonent bi sallallahu sallam yaa Aysa nee na bépp guddi mën na soxnaam yëpp les animaux munuñ ko animaux yi amul benn bu mën a dëkkee fee gis nga gaye li muy am kàttanu sëy luy sëy dina sëy soixante fois mais bu ko defee ci at bi benn yoon du ko defaat benn yoon la koy def pare kon nga del si fekk jumte yu bëri ci laaj ma ni soxna si yéen yéen problème góor ñi gaa am nañu problème mais am tun na muskila mu ne ma lu tax rek góor ñi yéen yéen a tax benn góor wératul quatre-vingt-dix-huit pour cent ci góor ñi amatuñu kàttan ba ñu daan am cause bi mooy góor ñi ne dañuy constipé lu bari mu ne amal ah, ko man damay faj mais néew na góor bu dugg fii di faj lu dul problème boobu dafa ma koy gaaral damay constipé lu bari damay ballonné lu bari damay jéggi sama biir di am ngelaw léeg-léeg góor ne la damay jékki du ma sentir sa bopp lan moo la fatigue générale ma di soxna si li tax loolu am mooy góor ñi joxatu leen benn lekk bu baax góor ñi tamit nay dàggale parce que lekk boo xamante ni lépp toxique la wala lekk boo xamante ni lépp boo ko seetloo jaamu jaamuwaay bu baax mu ne man bu yéen togg yi ngeen di togg benn amatul benn jigéen buy suusal ceeb ba mu ba mu suus amul bi gaz ñëwee mu nekk phénomène léegi gaz cinquante minutes jigéen teg ci am mu pare mu yàq te suñu maam yi bañ daan togg dañ doon toggee màtt wala këriñ dañu daan baaral légume bi lépp dafay ñor bu ñu tayee bàyyi ko ba mu bàyyi ñu teggi seppi bu ñu seppee bàyyi naan boobu sóor bu ñu sóoree bàyyi ceeb bi day dem ba ñor ceeb bu ñoree boo sàkkamee a des mais léegi ceeb yi boo xam dañ ciy boole dugub boole ci mboq boole ci tàndarma loo ko sànni ci en même temps boole ci soble bu baree baree bari te fa mu war a jaar dafa jaar épices yëpp nga def ko léegi sa góor ko reeree ko mu formé mu nekk benn pat ci biiram pat boobu munu koo digérer nga xamante ni du rees mu toog biir bi te si biir góor ci ndiggam lay dajaloo foofu fat bu noyyiwul kooku boo ko soxlaa ci lal li nga ko te ñaareel bi consulté bu bari loolu bu koy def mën a yomb bu bari góor bu mën a yomb buy wut du am kàttan ana yéen lan ngeen di def xoolal suñu maam bi ñu daan yi góor ñëpp wéro waaye dañuy dem ci toolu bay ba ñax ñu toggal leen lekk boo xamante ni amul benn effet secondaire togg bi day ñor xorom bi day normal dañu koy daal ñu lekk ko boo ko lekkee xoola jën yi nan lañ ko daan roofee nebedaay lañ ko doon roofee suñu deful nebedaay def xo xobu xottu bu dee xamante ne xobu xottu ak nebedaay li ñuy xeexee suukar gi boo koy lekk suukar du moon ne ñoom dañ ko daan def nga jàpp ne baaloon lañu reer jot ñu reere teel te du daan reer dañuy julli timis rek reer wala dem jàpp ne julli timis boo ñëwee reer doogu julli tigee léegi loolu amul sa borom kër day liggéey wàcc huit heures balaa ak sa kër vingt trois heures su agsee nga taajal ko ceeb mu lekk ci bu suur géex géex yu metti tëdd nelaw nga jékki teg ko loxo dana ko bëgg mais du ko mën kan moo ko mooy yow kon le seul problème yow la yow ndaw parce que yaa ngi togg togg bu baax ñaareel bi góor gi tamit moom it dof parce que buggul lekk baadoon lekk baadoon mooy faj góor ay baxal yu tooy guddi waaye da ngay góor koo xamante ni dafay ñëw jël cinq mille francs pour bu débuter wala mu dem dugg ci aw say wala mu dugg fenn lekk fa hamburger shawarma ba biir bi kole neex na indil na la yàpp neex na mais bu paree li nga doog a dugg mën kon loolu il faut yéen jigéen di ngeen bàyyi wàll loolu xel beneen bi bokk ci góor ñu bëri li leen handicapé ba mënatu ñu dara mooy soxla yu bëri ci jigéen góor boo ko tegee soxla yu mu àttanul ngóoram dem saa bu liggéeyee xelam day nekk indi wul bu mel ndaw si di yar benn bu ci biir kër gi ngay amee naqar ci biir kër gi indil problème coow guddi góor ñu bëri coow guddi moo leen def nekkatuñu góor am na góor boo xamante ne boo ko toppee chaque jour lu tax defaloo ko da nga ko waroon defal yaa ko waxoon su yàggee day su découragé cerveau dootul kon loolu problème la boo xamante ni ci biir kër yi dafay yaatu lool lool lool lool lool gis nga góor ñi ñaari façon góor moom dafa am góoru sikket ak góoru kuy sikket mooy bëy bu góor bëy bu góor day bëgg sëy waaye li bëgg sëy bu ko bëyu góor bu ko bëyu jigéen yi nangu woon buy daw di daal léegi li bëgg sëy góor boobu coow la bëri bëgg na sëy mën na waaye yàlla lay nattoo nga am jigéenu xar foo fekk góor si ket jigéenu xar la ko yàlla boole foo fekk góoru xar kuy kuy bëy jigéen la ko yàlla boole jigéen bi mel noonu am na góor koo xam ne li mu ci sëy nattoo mooy jabar bëggul noonu sëy loolu nag bu mu ko def nattu ne mais dimbalu yàlla la yàlla mooy organiser loolu yàlla mooy équilibrer loolu kër su bàyyi kër gi góor gi mel ni sikket jigéen gi dugg sëy ba mel na ko buy yàgg rek góor gi daal dem hôpital mbaa jigéen gi daal dem hôpital moo tax yàlla eh allah xakamul ànd ya yàlla du boole ñaari mënta ànd kon boo dee góor bëgg sëy lool yàlla boole jigéen bu bëggul sëy lu bëri santee ko yàlla parce que li nga bëgg bu ko ndaw su bëggoon doo nga problème contraire bi mooy la même chose jigéen bi li mu bëgg ci sëy su ko ci góor fekkee problème am kon jafe-jafe yu mel noonu jafe-jafe ci biir kër yi la lan moo ci solution la ak la solution bi mooy ñu ragal yàlla xam ne kër yi neex yëpp am nga lu ñu waxoon kër yu bëri xam ba tey moo tax ku leen gis kontaan kër yu bëri léeg-léeg nga gis gis nga ci wàllu sëy damay faral di wax nii sa papa dama ko wax gis nga góor bu amee jabar ñaaroo su deful tànk dootu ko gaaw bàyyi jigéen bu amee jëkkër ñaaroo su deful tànk dootu ko bàyyi lan moo tax mooy seytaane day participé ndax li ngeen di def neexut yàlla seytaane day dugg ànd ak góor gi góor gi dooleem yokku mu sëy ba yëg bànneex boo xamante ni musu ko yëg jigéen ji loolu moo tax góor gi bu fi bàyyee jabaram sëy keneen toujours xelam ci kooku rek lay nekk ndax lëm fa jëlee ci bànneex kii bu nga def ko ci moom contraire bi laa la moo tax iblis moo leen di dimbale iblis day bañ ñu bàyyi ko mu yokkal góor gi doole yombalal jigéen bi ñu foog ba am bànneex lool lool waaye ndax àdduna bànneex ak fi indi déedéet su dee këru jullit nag bi nga xam ne dañ koo aar yow jullit bi looy def danga bismillah balaa ngaa fay ngeen bismillah allahumma jannibna shaytaan wa jannib shaytaan maa razaqtana yàlla bu sori ci seytaane bu sori lii ñuy def bu seytaane sori góor gi naturel jigéen gi naturel <coughs> seen ak sëy mën na jël benn temps moo tax borom xam-xam yëpp sëy nee nañu sëy li normal sëy mënta romb six minutes bëri na ñu koy romb benn bari beneen bi am na lenn ci ñi am ci xam-xamu sëy li ñuy wax naan mën na dem ba douze minutes maximum douze minutes yooyu sax c'est pas papa lu papa su boobaa lay yóbbu nit ki ci douze minutes bi mooy séq bi muy séq ak soxna yi lépp dafa cee boole diire fo diire kaf bi ba àgg ci sëy mais àgg sëy boo xamante ni sëy normal la góor mënta nekk ci kaw jigéen lu ëpp six minutes mun ko kon nag yow jigéen bi bul amul di rek nga loolu def ko armi beneen bi góor gi bu mu am jabar moom it fooyee maa ngi fàttali góor ñi wallahi salafu saalih dañ ñaan yàlla kàttan góor ñu bëri dañoo foog ni loolu bokk ci ci diine am kay góor da ngay ñaan kàttan ni ngay ñaanee yàlla wér di ko ñaan iman bu yokku dee ko ñaanee loolu kàttan bokk na ci Fudayl bin Iyaad daana ko wax Abu Muslim xawlaani daana xam na sax ñu ne abu muslim xawlaani ibrahima adham la mais ala kulli haal am na ci biir salaf saalih teewlootuma tur yi kanam kan la mais su ko teewloon léegi naa la ko mbaa ma gis waat génn ko daan ñaan naan allahumma qawwi bud'i yaa arhamar rahim yow yàlla yàlla na nga kàttanal mu ne dañ ko laaj ngay ñaan loolu mu ne parce que ngóor a mooy suturee góor da ngeen suñu maam yi daa nga dégg baatu Ababacar yàlla na yàlla mooy sutura mm-hmm. da nga dégg xam nga loolu du nekk mm-hmm. yàlla na yàlla mooy sutura mooy yàlla na yàlla mooy kàttanu sëy góor bu am sutura ci gërëm rek daa mën sëy mm-hmm. mais mënu sëy amul wala sutura weer moo tax mag ñi mënuñ koo tudd nga xam ko benn ñaan yàlla na yàlla mooy sutura sutura boobu nag bokk na ci góor bu bëggee kattanam maintenir am na ay ñaan waaye am na ay précaution lekk yi wax naa ko am na yu ñu a jël yu naturel góor gi mën koo jël dinaa ci wax tuuti gis nga góor bu defee bu fexee ba du am saar biiram du constipé du sonn lu bëri góor boobu dana nekk góor bu mën laa loolu nag mooy da ut reenu Dakar reenu Dakar dañu faral ut boo jëlee takku Dakar bi nga boole ci benn reenu bàcc coor bàcc coor nga boole ci ñaari reenu sendel ak benn takku sulukum Dakar bàcc coor sendel sulukum Dakar bàcc coor sendel sulukum yii boo ko jëlee bu la neexee nga jël benn cof dagg su ndaw ci naan nga def def ko ci sa bouteille bi yow saa boo lekkee naan ci kaas fataay boo xëyee suba naanal ba pare naanal kaas fataay muy dëgg lii boo koy def doo di nga maintenir sa kàttan te insha allah boo ko bàyyiwul ba ba ngay dee doo wàcc la kon loolu baax na góor ñi ñu ko beneen bi bokk na ci di ñaan léeg-léeg nga jël sa loxo di ko teg ci sa baaraam def sa naq di wax audu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadu juróom ñaar yi chaque jour nga jël sa loxo teg ko ci sa baaraam baaraam ne audu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadu yow yàlla maa ngi muslu ci sa kattan ak sa doole ci lépp lu mën a rabal beneen bi zamzam buur bu koy tàqoo bu koy tàqoo di ko def lii doo néew kàttan mooy ndox mooy naan dina am zamzam utal sa bidon dix litres jëlal zamzam def ñaan ci li nga jàng ci li nga mën naan boo tànkee nga jàng faate ba mu ñaan yàlla wéral kàttan naan insha allah am na ñu ko tàqoo def ba léegi amul problème kon loolu bokk na ci remède yi waaye beneen remède bi tamit mooy di jéggalu yàlla lu bari borom bi subhanahu wa taala wax na yonent yàlla Huud li mu waxoon aw nitam lu mu leen waxoon wa yaa qawmi istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursili samaa alaykum midraara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum mooy yéen sama leen jéggalu leen yàlla su ngeen tuubee rek yàlla taw su yàlla di tawee dana leen may kàttan ci kaw kàttan ñu ne kàttan ci kaw kàttan mooy wér ginnaaw wér gi yaram mooy wér ci sëy ginnaaw wér gi yaram kon deel di kasatul istigfaar ku la gën a bëri muy tuub di dellu ci yàlla moo lay ma doon waxtaan ak ñaari mbokk yi ba yàlla dimbale ba alhamdulilah yàlla sax yàlla defal ñu tawfiq hmm. ñoom ñaar ñëpp vraiment ñu kontaan ci lool vraiment defar ma kado boo xam ma nit kontaan naa ci lool ndax waa noonu la ustaas problème bi fu jafe la mun ko woon réglé yàlla la ba réglé nañ ko kon defal nit ñi ñu mun koo jëriñu incha allah ñoom it yàlla yàlla leen yàlla fay leen maa ngi delluwaat ci ne kër yi il faut ñu mun àjjana nag la ñu mën a amee li ñu gis nga waa àjjana àjjana bu fa nekk dëgg dee du bu ma wax parce que la bu ñu am bu ñu nekkee àjjana waxum fi sublin faatihi borom bi nee na dañuy nekk seen jamono di sëy wa hum fii suulin faakihun ay hum maa zawjaatihim janna yàlla yàlla defal ñu ko defal ñu ko mboolem jullit nañu yëg nag ni borom bi nee na wala nabluwannakum xatta naalama almujahidina minkum wa naalama alsabirin yàlla ne dinaa leen natt ba xam ñi nga xamante ni ñoom a jihaad ak ñi muñ kër yi muñ rek moo ñu fi teg fu ñu demee àjjana li ñu bëgg am ko yàlla yàlla ñu bëgg ñu jëfal leen wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu